700 Khalil baax na ñu dem ah xaar xaar mu doon xaar xaar kewul xaar kewul ah, yo kuy suñu ñe kewul baaxul lu wax de kewul baaxul lu ma de jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di bu baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mbokk yi mbégte la tey ñu teew fii caaro yi Coly Faye numéro 2 moo woote point de presse muy jàkkaarloo ak Thiatou Daouda Fall keroog nag def moom open de presse am muy dimanche incha allah le 12 fële ca arène nationale journée Albourakh Events mu nekk ay combat yu neex yoo xamante bi nii mbëri si bëri yëpp kenn ku nekk grand combat nga mujj bi nag yaakaar naa ne yomb na lool parce que billet bi a yomb 5000 francs la ci 5 grand combat wala 6 ba 7 grand combat yoo xamante bi nii Baye Ndiaye da ko amateur yi fële ca arène nationale bu tey dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyu mbokk internet bi bu ko defee ñu jublu si liggéey bi bisimilah asbilahi ni wa <coughs> ma sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suma ñaari waajur di ñaanal suma yaay fi mu tëdd a ko fi mu jugee di ñaanal suma yaay fi tëdd yàlla suñu borom xare ko àjjana si àjjana ak firdawsi di ñaanal suma papa suñu borom bàyyi ko parce que nam di xarit Fallou Ndiaye nekk sët si man sama xarit nekk sama lépp di nga ñaanal yàlla yàlla suñu borom xare di gërëm sama gaay di di jelman yëpp képp caabi féeri ginnaaw gi la jelas jelas nga dellu si loolu si nga nekkoon di nuyu jelman yëpp di nuyu samay boy ñoom si andiol ñoom ñoom borom yëpp alaaji mori di nuyu ñëpp képp ku dëkk jam, képp képp kuy doomu aadama ko nekk jeel ñu lay ñaanal nga ñibbi si ci jàmm di ñaanal ñu tëdd si hôpitaux yi waaw mu doon maa ngi lay fay di ziar bu baax nga yëkkati kàddu gi bu baax foo toll si wàccaay bi koli waaw Amadou balaa may wax si loolu boo gisee li war a moo moo woote point de presse caare dañu am naqar dafa am suñu mbokk yoo xam famille famille yoo xam ne ñoo réer di géej depuis le 9 octobre doon départ ba le 9 di si ñaata un mois mu doon naxar bu naxar bu ñu métti ñun ñëpp ñu lancé message di woo marine nationale ñu wax ñu dimbali ñu si loolu ñu seetal ñu suñ suñ suñ suñ suñ mbokk yooyu famille lañ dafi ñu di leen ñaanal yàlla na yàlla suñu borom nit ñu ngi leen si jàmm naxar woowu daal moo tax ñu bari dañ ma mere si lu tax def open press mais naxar woowu ñu am moo waral def ñu open press ak suñu mbokk yi ñu téye ci Maroc ñu ñaanal ñu ñaan ñuy woo ambassadeur Sénégal bi nekk Maroc dafa am suñuy doom yoo xam suñuy doom réew yoo xam ne si lañu dëkk caaray ñu téye leen ci Maroc dana dem Espagne jàll ñu xanaa kay doomu jaamur boo ko téye ni nga ko a bàyyi ma ñibbi ñun ñu fen dañ doon naan dañ doon daan seen doole di wuti lu ñu dimbale seen njaboot ñu téye leen fa di boobu ba léegi Maroc yàgg na jox ñu leen ñu lekk lekk ñu lekk ñu baax dund ñu dund bu baax boo déggee ni ñuy waxee sax benn pain bu cent leen jox benn jus bu 100 francs loolu yoon depuis un mois boobu la ñu téye leen fa kon ñu ngi ñaan ah, loolu Marocains yi neen ñoom ci assemblée du Sénégal la des kon ñu ngi ñaan état na wax si loolu ñu dimbali si loolu ñooñu suñuy doom lañ suñuy mag suñuy rak suñuy yaay ñoo fa ay famille yoo xam dañ leen téye foofu ñu bokk la ñuy réer si géej kon ñu ngi ñaan état mu wax si loolu ñu bàyyi la ñu ñibbi si ba dellu si liñ nekkoon mhm. macha allah explication bi leer na léegi fan nga toll ci wàccaay bi pour dimanche le moom ku parewul ba heure bi dara pare parce que amoon na jours. te la jeudi vendredi samedi dimanche ku faral ba heure bi waroo pare kon dañuy ñëw rek confirmer rek moo ñu des. lan moo la boole ak adversaire bi. waa lamb la rek ak tolof tolof lamb ak tolof tolof rek moo ñu boole. Mm-hmm. ñu war a jëflante ak moom te dañuy jëflante incha allah. Mm-hmm. jafe-jafe nga wax moo leen boole. tolof tolof ci adversaire boo xam ci dynamique de victoire la toog te xale boo xamante bi nii. géejawaay dañu am yaakaar ci moom lan moo la boole ak moom nga ne tolof tolof. waaw tolof tolof rek mu ànd ak yoo xam ne si yow sa boobu nga ne bi duñu daje laam moo doxee noonu dara xëy koy sotti yàlla suñu borom amaana boo ko bëggee nii sama jaajaar il faut ma ciy jaar ma bëgg ma ciy jaar ma bañ ma ciy jaar kon il faut ma jaar si loolu kese la mel dara. Mm-hmm. chaque jour muy confirmer que boo taxawee mu xeex yow la dem normal loolu la war a parce que moom sama adversaire la gëm loolu lan lan lay gëm seen dama gëm loolu waaw loolu dama koy nangul. maa ngi jàpp ah, beneen bi mooy kon li waxee ni day ñaan yàlla bis bu bul bàyyi bëri ñu gis loolu ñu ngi koy communiqué dafa bàyyi loolu nan nga koy déggee. waaw loolu lu ma ko doon xëy na moom xëy dafa am lu ñu ci xam rek. xëy na daa am lañ ko ci wax rek mais man ma dëgg fa yàlla moom mënoo am leneen lu gën làmb ku ma xam làmb dara nga xam côté boobu moom dafa juum quoi mais sant sumay xarit yëpp képp ku ma sant képp ku ma ci wàllu papa samay mag samay rak sama xarit sama jarbaat sama yaay sama famille yaay yi dëkk wa waa wa waa wa waa wa waa wa waa Njóobeen Fayeen Ngéyeen bàyyi ma kenn may sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo caare gépp caare jàmm gan lam saar sama xarit darki ndaay duma ñëpp dawé samay gaan la déssé duma ñëpp dawé samay gaan kër la dajé ak ak dar ki nday ak sama wa igri bu doon dama amoon lu ko ci mëna naree am dërëm di lék di len bàyyi ñu ni yalla mo am dañi samay samay bëss da leen jaral lu né barki alcorane dama tëdd sama gala di nala fa ñu ma jël ci entraînement chaque jour mo ne ko ko mo ni kon mo ñi bu len leen dëkkalee dara man ci mo gënal ci mo may contact la gën respecté ci mo may d'accord hmm. gis nañ la nga déplacé wu dem Dionewar di entraîner ak Siteu da nga jàpp ne li nga entraîner fii wala li nga am fii li nga li nga bëgg mënoo koo am fii moo tax nga déplacé wu dem ci Siteu non non Dionewar moom avant même naa fa dem dama fa ren dama fa daaw dama yàgg naa fa dem dama fa war a dem dem fa liggéey moo fa yóbboon liggéey naa pare ñibbisi naa loolu rek moo fa yóbboon ba tey dañuy ñëw ci ci keroog dama ne ko xale bi ngay bëreel min na géej mosu fee am defet mu ne boo jaaran ci moom doo daan doo jot daan ñetti gram yooyu muy ay Youssou Ndour ak laa soxla meer bi. maire lan maire laa soxla. maire géej waaye. maire géej ah. mu jël maire bi. Ah, kon ba kon ba ma jël municipal bi. wala nga nekk adjoint. wala ma nekk préfet préfet <laughs> daa ma ne préfet Guédiawaye mais est-ce que xale bi dina la ko may parce que gis nañ ne fonk na combat bi te ci wàllum état progressé na ci macha allah. non man ma dugg yàlla ma ko dara man moom ñu ñaan jàmbaar la da muy def ni war a def échange waay wax rek ñu ngi yàq say wax jour yi mhm. boo ci amee ndam mën naa defar mais boo si ñàkkee ndam parce que mën na la dugal ci saako bi kulli combat bi fan la la toll. ñaan ma yàlla dugg saako Mourou Anta. combat bi fi ma toll fi ma yeneen combat yi la ma toll rek. Mhm. dañ ko laaj ne ko combat bi déroulement combat bi. a seet see dina ma dóomu daanu mën na cee am moom lool. waaw yow dimanche loolu ko gëm ko loolu man daal kii sama nawle la mhm. su ma deful nawle man def naa ko nawle su ma deful mbokk def naa ko mbokk su ma deful xarit def naa ko xarit. lam moo ñu boole man moom lam la ñuy bu jeexee jeex na amul leen lu may nekk fi di dàgg sant moom fa yàlla te aw ma sax état physique bi gis nañ ne Modou Anta nga xam te ne mooy physique bi ba ci seen vidéo yi kon ko la da cee dañoo gis ni ñëpp dañu la ko à qualifié ndax ci côté physique bi lan tax ci côté entraînement yi ko tax non Cheikh man dama liggéey de man dama ci ay dibi ama ñuy màggal laa sama laa sama gal ama màggal laa bi kepar pare sama gal iya, kan, bin ñu màggalee pare laa sama gal eh. dem loolu nek sama rox ana sama xarit sama dom day sita ñuy liggéey bu jige bi dem gambi gambi dana presque un mois xam ñu bi dama jon wa dafa un mois ma sant mbeur ñoo jor yeb nak li dalé Cheikh Diagne ñaan Yank ba Amar Jalang ñom ñep dal xadafi sant mbëri jonwaar tamit sant ñoom Ndiaye Abdourahmane bàyyi ma kenn di leen sant ñoom ñëpp sant waa Jongwaar waa Ile Ndox mi waa Jongwaar waa Munde Ile Ndox mi bàyyi ma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. dinaa leen taxawal si làmb jàpp nañ si bu baax. di sant tund Bawol gépp nag tund Bawol di sant ñëpp bàyyi ma kenn. waa Sine Saloum waa Waalo ñëpp. mais Coly. Hmm. sa supporter yi ñàkkul ne ñu ngi la koy jëwee dañu xàmmeetul Coly Faye. bu doon bëreeg ay Zil Balde Junior ay Jëf Jël ay Youssou Coly bu tàkk bu ana moo ñëw ni moo ñëw nii. seetaan naa sa vidéo. waaw tey boo ñu ngi ciy waxtaan. vidéo maa ngi ci bàyyi xel du ma tëdd si laal tasiwaat ma ko. yow nag maa ñaax. laa ma ñu kenn ma si kuréel yow ndax dama seetaan vidéo boobu. loolu noonu ngay wax noonu. Hmm. loolu laa pare pour indiwaat nii. di sant waa Fajut bu baax samay goro waa Fajut. ma leen sant bu baax dinaa ñu taxawoo si lamb bi. jàpp nañ ci bu baax lamb bi seen lamb la. mu ronta kulifay boobu ngay laaj mu ngi ni toog te boo gisee di nga xam ne mu ngi ni toog da nga ma daan gisee est-ce que yow na ma daan gisee noonu nga ma gisee kulifay bi nga doon laaj bi doon bi tax karaw gi karaw gi rek a ci manqué kese moo ci manqué mais kulifay baa ngi nii lépp loolu na moon ci mën naa la ko indi incha allah bu la déggee kon da nga décidé ci combat bi man sa combat damay décidé mais rawatina bii wax ji dafa bari waroo ko jël moo la man moo gën a nekk loolu yëpp dimanche dama war pour confirmer loolu. Ah. Euh, ba tey Coly gis Sa Thiès gis tey ñëpp ñoo xamante ne tey ay espoir oh du am pression ci yow. loolu seen wareef la rek seen wareef la li ñu war a def rek lañ def ñu ko ne li nga war a def da nga def loolu amoo ci question. non ok ci côté mobilisation fan nga parce que combat bi bokk na ci combat yi gën a cher yi nga doon bi yi nga doon euh, bëri lan yi nga xam ne ñoo fi ne parce que supporter billet 5000 francs. fan yow kii moo tax damay ah. woo loolu li ci woo su may xarit laa ci woo. Hmm. man nga rër excité. man ñooñu laa am. man jaaree fii laa dëkk. bi hmm. maa ngi ci bàyyi sama 24 combat. Hmm. bu ci mag ci autorité ñu jàppoon ne sax caare am na autorité mais bu fekkee am na fi ñu leen woo ñëw jàppale ñu ci làmb ji man sumay xarit laay oh, woo quoi man ñaar la am hmm. sumay xarit sumay mbokk ak sumay goro ñooñu laay oh. woo ku mel ni rek accident maa ngi oh, woo ci làmb ñëw jàpp ci bu sama gaan eh, buuba terkindaa bi nekk Espagne di ko sant bu baax di ko gërëm daa ma na si làmb ji di ko sant bu sant suma xarit yëpp mu doon dama sama ñaari autorité la am muy ak Siteu ak caaro li muy ana ñi fi nekk parce que ñoo duñ ay autorité ñoo ay mbëri lamb waaw mais ñoo ñoo sama autorité ndax parce que ñoo may jàppale li ko lay jàppale man mënoo sant ku la mënoo gërëm ku la jàppalewul mënoo sant ku la jàppalewul mais naa sama nit yu baax est-ce que ngeen tamit ñu leen dem ci bi dem ci homme yi biir yi parce que ngi yu yi leen ñun bu jëlee suñu drapeau bi yóbbuñ ko Pikine yóbbuñ ko Parcelles yóbbuñ ko Guédiawaye caare lañ koy indi fi lañ yeewoo fi lañ na autorité ba xam na autorité ñun suñu moyen bopp la ñuy demee waroon da war na sëñ Fallou Mbacké suñu morom am bu ñu amoon heure bi dépassé nañ bu yàgg xëy ñun ñu xam ne ñun seen ñun bu ñu amee ndam yóbbuñ defee fi lañ ko ñun dëkk ñu dëkk ñu feneen fu dul caare yi barki maam Cheikh Fall mu gëmoo feneen fu dul ne ngir Pikine laa nekkoon lool Pikine Pikine laa nekkoon man gis li Boy Niang fa laa nekkoon mais man man ma nekk su nekk fu caaray man dama gëm je suis fier caaray waaw man deret caaray moo daw sama yaram man feneen fu ma dem fu caaray ma bàyyi woo samay xarit yëpp ñu ñaanal Laat Zeng Sindiw Yéen sama xarit Abdoulaye Diop bàyyi ma kenn di suma ñaari jumeaux yi waa récupéré waa dal jàmm li man bàyyi ma kenn Petit Lion Petit Ji Grand Ji waa Camp waa Jeune France bàyyi ma kenn may sant keroog AG Thiaroye Géej yëpp di woo ñëpp ci làmb ñoo jàpp si waa Sarr waa Thiaroye Agir waa Fadiouth waa Jongwaar waa Bawol tund Bawol gi yëpp ma leen woo si làmb ji ngeen wax làmb ji seen làmb ji ñoo jàpp si làmb ji di woo waa Touba di woo ñëpp di woo waa Gambie Gambie sama dëkk ma leen woo bu baax di woo waa Tànje waa Bakaw waa Serekunda waa Bir Kama Tobokoto bàyyi ma kenn di woo waa Sokone di woo ñëpp may woo ñëpp si làmb ñoo bokk ci wàllu papa maa leen woo si làmb gis naa ni ma taxawoo wane nañ ma ñoo bokk sama mbokk yaay sama mbokk yaay sama rakk yaay gis nañ ba mère wàññi ko ba léegi ñu taxawoo bëgguñu ñu jooy benn yoon bëgguñu ñu soxla dara bëgguñu làmb dara ñu ñuy taxaw bu baax di sant ku mel ne suma yaay Fadiaye Yade ak suma yaay Khady Diop di sant Niass Oris sëñ Moussa Issa Laye di woo ñëpp si làmb ñoo jàpp si làmb maa ngi woo autorité ba caare Kafer di woo ñëpp ñoo jàpp si làmb man ñaari autorité la dama koy waxaat encore une fois muy Siteu ak Reug Reug. rendez-vous. rendez-vous dimanche. looy mujjee wax waa ji parce que keroog nag ñoom Sa Thiès ñëw nañ Balla Gaye ñoom ñëw nañ ñëpp poussé ko vers la victoire. non mu doon la loolu seen war a def rek loolu amoo ci question li ñu war a def rek def bu deful loolu xam nga lan la ñuy def. kontaan ci yow jàmm ci yow rek.